yëkkati naa xam ngeen ku ñu woo Amadou Ba la ñu woo Sud Quotidien ne ma Amadou Ba à la barre daje na ak société civile moom premier ministre ñu waxtaanee nag rapport Cour des comptes bi ak yeneen l'observateur ne ma saa si tembe ña ngay communiqué de ndax nag état d'urgence dëgg-dëgg loo ci mënti dégg communication bu gouvernement gu Sénégal daf ko laaj yéen kaay bi ne ma saa si tembe nag lañ bët nañ problème bi xool ko beneen facette nag la laaj ñu andi ko ngir mën a yëy nopp askan wi ci fond force Covid 19 bi fu mu daal di jaar gannaaw gouvernement gi ay layam tey daal dinay génn jàkkaarloog société civile wax koy dëggam tribune yéen kaay ne Amadou Ba weddiwul de ma ngay wuub sàcceey naan am nañu tibb am nañu jël te jëfin yooyee day daal di heurté nag sunu éthique te jëfin yooyee it Amadou Ba wax de tribune yéen kaay ne ma nee na honoré wul benn yoon sunu administration sagalu ko jagalu ko kon ku def l'info yéen kaay ne ma Amadou kay weddiwul dañ ko yónni kay ngir mu doon nettoyeur ba kay raxas mu set ndax nee na nag jëf yii bu dee am na dëgg dëgg ñaaw na lool Birahim Seck tribune yéen kaay ko amul am ma ndax rapport cour des kont bi moo ko wax Amadou ne ma la ci junniy milliards la ñu ne tibb nañ ko juróom benni milliards ak juróom benni téeméeri million la Birahim Seck Turbine yéen kaay naan kon sunu ala la moom Amadou Ba ci l'info naan ko ma ñëw rapport bi nag buñ ko liiree liiraat ko seet ka seggantal ko daal nay wane nag ay points yu positif yu baax xam ne nag la ca ëpp moom moo di liggéey ba nga xam ne defal nañ ko askan wi ngir moytul leen mbas mi Birahim Seck ci Turbine yéen kaay ne ko terewul alal jën leen joxoon naan leen faj leen askan wi dañ koo jël def ko ci seenu gafa fa benn parti bi moom Amadou Ba ci l'info yéene kaay naan koon dëgg-dëgg débat bi nañ ko yóbbu ci l'essentiel mooy na xool gouvernement gi nees ko joyantee ba mu gën a mën a jariñ askan wi waaye tam la nga xam ni mooy recommandation ci biir rapport boobe ñu xool nees def ba daal di koy jëfee Birahim Seck ci turbine yéene kaay ne ko na njiit la wax ndax nag moom président Macky Sall moom la ñëpp joxoñ baaraam nee nga moom président Macky Sall moo joxe autorisation waa moom président Macky Sall ma joxe autorisation boobee dañ koy sampal ay laaj Birahim Seck ne ko benn lan moo tax rapport bu IGE ci nguuru Sénégal naka lañ ko yore waaye tam yër compte yi ba tey nii kenn gisu ko Birahim Seck ne ko bene a ngi nii de laajal ma moom président Macky Sall lan moo tax rapport annuel 2018 bu Cour des comptes kenn gisu ko rapport annuel bu ko rapport annuel bu 2020 bu Cour des comptes kenn gisu ko rapport annuel bu 2021 bu Cour des comptes kenn gisu ko Birahim mel ni ku naan kon waxulee nag ay bojo bojo ñun duñu ay xale ay magum jëmm leen l'indépendant yéen a kaay naan man Amadou Ba ngay géré de ma ngay dalal waa société civile nag naan leen ak lu mën a am mbiri ci boppam ci leer lay daal di mujjee sursu amel ni ku naan man bu leen ko xaar léegi de ndaxte gars yi bu dee yóbbu nañ leen ci procès mënta am fii ak juróom jàpp juróom benn ci weer chambre discipline ak financière ba nga xam ne moo war a saytu seedu mbir ba yóbbu leen ci procès la mu yor ci dossier mat na ko ca xak jara yéeni kaay bi na ma dossier yooyee yeneenuk organe contrôle yu ci mel ni IGE ñoo ko jébbal ñii nga xam ne rapport cour des comptes bi def ni leen nii kuy xaar seenub atte daw tëriwaat ndax chambre discipline ak financière ba nga xam ni nee ñoo yaay fa lañ leen war a yóbbu ñeenti magistrat fa am ak benn président l'enquête ko di jeene Amadou daal en tout cas nee na ñu ngay wër coupable yi de xool lañ def ak lañ deful Maodo Malick Mbaye ci Vox Populi naan Mansour Faye ci boppam rapport bi jàpp ko na leer Mimi Touré ci laas yéene kaay naan leen képp koo xam ne laala nga ci rapport bi day boo tëddee nelawal ndax na goro national Mansour Faye lañ ci ne nii te Mansour Faye buñ mbir mi du mujjee fenn képp ku ñu taxal ci rapport bi raw nga fa yàllaaxu barkeb Mansour le quotidien le quotidien mel ni ku naan kon mimi tee ngaa noppi yow ci boppam ab rapport bu IGE daal dina lay jàpp ñaari milliards la ñu ne danga koo luubal las yéen kaay ne ma mimi Touré épinglé nañ ko de ñaari milliards la ñu ne kenn xamul fu mu ko dugal lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari millions mimi Touré jël ko jëfandikoo ko nag ngir cappa-cappal image am Walf Quotidien mel ni ku naan maan mimee ngi ñëw de dal sunu kaw yóbbaale sunu ñaari milliards rapport bi IGE ci boppam moo ni niib mimi Touré ci yorinam woon ci conseil économique social ak environnemental moomee nga xam ni rapport bi nee na ko niib nee na candidat la ci élection présidentielle yu 2024 yi te boobule candidature day narta mimi narta rafet de ndax mi ci boppam ñañuy toppee sunu alal bokk na ca léegi bés bi le jour ne laaj nañ ko ndax mën nga am ak alliance ak Sonko mimi Touré na lépp mën naa xew ci laas yéene kaay mi Touré naan faan lépp daal mën naa xew ba mu des président Macky Sall mii am troisième mandat ci mi réew duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bés bi le jour en tout cas société civile seen ndaje ba ak gouvernement gu Sénégal lépp nag daal dinañ leen koy nangu nangul ba ci sax libération bu Papa Alé Niang source aane ma tegal foofu sa loxo nangul nañ leen lépp ba mu des ñetteel bi mandat vox populi ne ma en tout cas ba nii Papa Alé génnagul kaso ni ki démb dañ koo lànkal bàyyib nagandikoom moom Papa Alé Niang ne faatu ci kasoog rëbës bii diñ ma moo ma gënal nag faato ci l'hôpital waa kap yëkkatee di seenu kaddu ngir Papa Alé ñu daal di koy bàyyi nu mu gën a gaawee yéene kaay bi ne ma sëriñ sax yëkkati nañ seenu kaddu sëriñ Abdou Mbacke ma ngay sàkku ci président de la république Macky Sall ñu bàyyi Papa Alé Niang mii balaa làmbaay di ñaaw l'observateur yéen a kaay ma président Macky Sall bi mandat la tal de foogoon nan ni nag débat ba nga xam ni gaayam yi daañu ko yëkkati ñetteel bi mandat dana tax nit ñi fàtte rapport cour des comptes bi gaay nag wan ni ñoo leen gën a muus libération yéen a kaay ne ma en tout cas Fatima Mbeng contrôle judiciaire ba nekkoon ci moom gannaaw événement marché ba tey daal dinay teggeeku ci moom turbine yéen a ma ndaw ya war teggeeku ko day la bëgg muy nag directeur général bu yi nga xam ne ca zone Sali ba lañ ko naxatee seenug suuf moom njiital ko ne la ñu wax ne juróom-ñeenti hectare moo ca des ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar amut ndax nag zone bu Saliba amut benn forêt classée te zone ba la muy rëy rey juróom-ñeenti hectare la fa sab ko am te loole ñoŋal tourisme moo ko tax a jóg kon seen génn gii ñu génn di wax ci presse bi amut bopp amul génn tribune yéen kaay ma desal ak man la am bopp am génn moom moo di Abdoulaye Sylla la mu defal liggéeykatu Ecotrans ku ci nekk ci liggéeykat yi sax salaire yokku na ci téeméer boo jël fukk rax ci dolli lu toll ci ñeen fukk ci ingénieur daal dina ñuy bàbbeeku ñëw fekk si écotran libération yéeni kaay ne ma ñaawteef gaa ngi ci réew mi de jànd faal ci lumatul ñaar ci weer ñaari xale lañ fa daal di faat faat gu doy waar xale bu góor bi ñetti at la amoon ñu jamat ko daal di tàbbal ci teen ñu ne deetawaay beneen sët ba desoon ca kër ga di xadi jaañ am juróom benn ci ay at moom it ñu daal di koy jamat ba maar day taali teg ko ci wetuk teen ba ñaari xale yaa kon kër seen maam yoroon leen saa si tembe nag seen benn tante boo xam ni am na fanweeri at ak juróom benn yéeni kaay bi ne ma moom lan teg ci garda yi ndax njortu nañu daal ñaawteef gi moo ko def libération ne ma enquête baa ngay woy gardaaw yi ba ba tey ma nga ca ñu war a xam nag lan moo waral ñaawteef gi ndax nag ba ñu seetee enquête ba ba seet jàpp na ni daal faatug ñaari xale yi règlement de compte dong moo ko indi ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm